alaykum wa rahmatullah kon guddi ñaar fukkeel ga ak juroom ben ku ca julli fukki raka bu ci nek mu jàng ca faatixa benn yoon alqaariatu benn yoon ak qul huwallahu juroom yon bu noppé ca julli ga mu jéggal suñu borom lepp lu mu ko mësa def bu ko defee suñu borom dana ko mësa ci sawara dana melni it ku wor diirub jamono jep te bu ëllëgé bu déké suñu borom dana ko bolé jibril mikail israfil ak israil ñu gungé ko ba tabal ko aljanna kon fédération tout tànk Touba Toscana ñoo leen di ñaanal koru jàmm wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa